laqil lisaani waxlulan minhu lmuqad waj'alhu daakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allamta luqmaana al-xikam falyahab bil mustafa xayra sham assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu mbokki daara ji bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yoog siyaar waa daara Hikmatul Yawmi xaaju benn ñaar ñett ñeent juróom ak mboolem banqaas yi ci aju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 te fan yi ñu andi woon ci lenn ci cosaanul tabaski ak lan mooy tabaski ci boppam ak lenn ci xikma yi nga xam ne nii borom xam-xam yi nañ ko ci muy li nga xam ne ni mënees na ko ci jàngate kon tey ñu indi beneen tomb mooy euh, tabaski lan mooy taxawaayam kon ci lislaam lislaam ci juróom benn mbir yi lay àtte muy farata ak sunna ak lu dagan ak lu xaraam ak lu ñu sopp ak lu ñu sib ñaare loo gis rek benn lay taxawee ci juróom-benn mbir yi tabaski nag dañ koy fekk ci sunna ba noppi nag mu nekk sunna mu akkada sunna soo xam dañ koo feddali lool ci ku ko man waaye ci kuku man nag ndax ndegam farata sax da fekk suñu borom tabaaraka wa taala di wax ne aj màkka waaye nag kuku man li man istataaxa ilayhi sabila waxajul bayti liman istataa ilayhi sabilan mboolem jaamu yàlla yépp yi nga xam ne nii waajib la maanaam nekk farata yi ci ëpp laa wax nit ki mën naa dund ci kaw suuf doon ab jullit bu wér te du ko def nit ki mën naa dund ba dee dem màkka nit ki mën naa dund ba dee te du woor benn bis ci koor gi ndax mënu ko nit ki mën naa dund ba dee te du joxe asaka da koy jël kon ndegam yooyu mel noonu tey tañ nekk farata waxuma la nag sunna ak lu mu doon doon sunna mu akkada kon ku ko man kon nag wax dëgg yàlla suñu borom tabaaraka wa taala de li mu bëggal jullit ñi mooy euh, lu jàppandi waaye bëggi bëggalu leen lu jafe yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kon tabaski neex na waaye léeg-léeg mu diis gan te métti lool ngir aada ji nga xam ne dañ ko cee teg te mu ëpp diina ji ba muur ko ba léeg doo gis sax la cay diina ndax la cay aada ay sër la yu bari yuñ koy woddee ba doo doo gisati la cay diine ak la cay sunna loola nag ku nekk war na ko war na cee yeewu bu ko ko mbokki nitam bindeefam bëggee tegit moom mu bañ koo teg boppam ci fullaam ak faydaam tabaski symbole la maanaam sha'ir la min sha'ir islaam islam ci symbole islaam yi bu fekkoon ne ab dëkk ñëpp dañoo doon jullit kenn defu ko ca ka fa nekkal jullit ña wala kay kilifa ga war naa jóg wax ca wala mu jóg jàppanteek ñoom ca loola waaye bu ko ñenn defee kon mu yóbbaale ña ci des mu ngi mel ni nodd rek ab dëkk bu kenn noddul sañees naa jóg jëflante ñoom bu fekkee ay jullit la ñoom ñëpp waaye gis nga bu ko kenn defee ci dëkk ba la dëkk bay rëy rëy day mel ne ñëpp def nañ ko kon ak jaamu yàlla la goo xam dañ koy def taxarruban ila taxarruban ilallahi taala ngir jege yàlla kon nag waxuñu koo xam ne dafay dajale dépaasu ñetti weeram jëndee comme tabaski bu tabaski gi jàllee moo am jafe-jafe yu waxuñu koo xam ne nii dafay leb ay bor tabaskee bu tabaski gi jàllee mu nekk ci jafe-jafe ak demalek fekkale bu dee koo xam ne daal bu ko defee bu tabaski gi jàllee mu continuer moom di di dund la vie normal te du bàyyee ci moom ab góom bu boobaa tem doon mu kàllaf war na ko war na ko nit war na koo def te defaaleel ko ñi nga xam ne nii ak njabootam lañ waaw ay mbokkam lañ wala waxu man sa doom yu góor yu mësaarugul sa doom yu jigéen yu amagul boroom kër ak say wayjur yu mënalul seen bopp ñii ñëpp boo ko mënee nanga ko def te defaale leen ko tekkiwu na nag kenn ku nekk da nga ko war a jëndal am xaram defal ko ko déedéet tekkiwul loolu kon njaboot mën na koo def ci kër yóbbaale si ñii ñëpp eh, saxaaba bu ñuy wax abu ayub al ansari bañ ko laajee nu ngeen daan tabaskee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne jamono yonent bi de nit daana rey na xar daal di koy def tabaskeem yéene waale ci waa këram ñëpp bu ko defee ñu xewlu ca eh, saraxa ca denc ca itam ndax ñetti yooyu bu ci nekk dagan na an abi ayuba al ansari radiallahu anhu kaan rajulu fi ahdi nabii sallallahu alayhi wa sallam yudaxi bi shaat anhu an ahli bayti fa yaakuluuna wa yataamuun eh, Sénégal nag aada tax na eh, nit ñi bu ñu mënee duñ def bu ñu tëlee itam duñ bàyyi dangay gis waxambaane yoo xam ne nii kat dañuy mënal seen bopp di liggéey di fayu weer wala di liggéey yor seen business bopp mënal seen bopp dara lool nag mën a tabaski ba tabaski waaleel ñeneen waaye duñ ko def dañuy jàpp na ñoom mos ñoom daal nekkuguñ ñoo xam tabaski war na leen ndax amaguñ soxna sampaguñ kër defaguñ nangam nangam nga xam ne mën nañoo maye sax ay tabaski waaye ñoom duñ ko def buñ demee nag ba kër njett leen nag ñu dugg ci ami soxna fekk mënatuñ ko nag. waaye dañ koy def par force nag ndax gannaaw am nañ soxna léegi dañoo war a tabaski loolu mooy boo mënee doo def boo tëlee itam doo bàyyi te tabaski képp ku ko mënul rek nag wàcc na la wax dëgg ak Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu yàlla na ko suñu borom fayal ay jamonoom dafay séddale ay xari tabaski mbooloo mu bari lool ñi ciy wursi mu ñëw ne leen jox leen ci ñi ci mën a am ñi mënta am nañ ma fekk ci biir ñu bari bëgg a bokk ci ñi mënta am ndax defe na eh, nu nekk lay demee nga daal di jox tabaskee ña ko mën a am ña des ñu fekk sëriñ ba ci biir Seexul Laxad na leen yéen ñii yéen yi ñi amut ci tabaski yi ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne wàcce na leen kon loolu mooy diine kon nañ ko yamale ci diine yamale ko ci sunna te bañ cee dund aada buñ ko ci dundee rek mu métti lépp lu metti du lislaam lépp lu metti du diine lépp lu métti du ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallama